benn DG bu bees daañu waxtaanee euh, seeni i euh, jafe-jafe wante tamit waxtaanee lépp lu soxal euh, wàllum transport ci jamonoy Covid ak tamit après Covid jafe-jafe yi nga xamante ni am na moo waral tey jii ñu dalal mbay jaw nekk secretaire général bu syndicat des transports routiers bu Dakar Dem Dikk nekk tamit chef de section logistique ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. waaw salaamaaleykum Ndeye mhm. maa ngi am mbégte ak kontante ci dalal bi ma dalal di nuyu euh, mbokk auditeurs yëpp di nuyu tamit waa Dakar Dem Dikk yëpp di profité waale di jaale suñu camarade bi wàññeeku mooy ajaratu tabara mhm. ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljana amiin amiin waaw voilà tey jii euh, Mbaye Diaw kon ñu ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité sax question bu ma lay njëkk a laaj mooy euh, comment se porte Dakar Dem Dikk Dakar Dem Dikk nu mu demee. exactement waaw alhamdulilah Dakar Dem Dikk se porte bien ñu ngi xëy di liggéey. Mhm. donc donte fan yi ci ginnaaw amoon nañu ay tolof tolof yu bëri mais fu mu toll nii ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéeyaat daal parce que kaar yi. feesul daanu loon fees bu njëkk ba. Mhm. parce que président bi euh, président ak euh, ministre bi dañoo joxe woon instruction que ni. Mhm. ak euh, problème corona bi donc place assise yi rek mais fu mu toll nii comme que place. dëgguy ñu ngi am. Mhm. donc euh, ñu ngi ñu ngi gérer daal mais am nañu ay problèmes yoo xamante ni c'est à l'interne quoi. comme lu ci mhm. mel ni fan yi manque gasoil bi ñu am. Mhm. ak aussi travailleurs yi nga xamante ni ñoom a nañ trop. guddi yuñ toll nii parce que ku ci feebar doo faju donc daal ay problèmes yu nekk ci biir donc mën nañu wax euh, Dakar Dem Dikk se porte mal bien. waaw donc. Euh, plus ou moins quoi. Mm. <laughs> waaw parce que donc euh, sa porte mal daal boobu mm. di dégg-dégg. tey jii dañ lay njëkk a laaj naka nga gisee euh, départu ki nga xamante ni moom mooy maître bu Moussa Diop parce que def na fa ay at yu bëree bëri juróom-benn at suma ma juumulee euh, maître Moussa Diop mi ngi foofu yow ban jàngat nga am ci ni ñu ko limogé jëlee ko ci bopp Dakar dem dikk lan moo ci sa jàngat déjà. waaw donc loolu moom dinaa am dinaa sawar trop ci tontu ci question boobu noonu. Mm. parce que moom tamit wax dëgg fa yàlla def na fa six ans. Mm-hmm. six ans yoo xamante ni nit fu mu def six ans doona def fa lu baax. Mm-hmm. donc def na fa lu baax comme aussi am na ay erreurs yoo xamante ni def na ko fa. donc ci kaw loolu nekk na fa ba jóge fa ak jàmm. Mm-hmm. donc keneen ñëw remplacer ko am ay projet yoo xamante ni am na ko am. ambition boo xam ne am na ko. yow yow métti na la li ñu fa jëlee maître Moussa Diop waaw wala bon non non man parce que du kii si man quoi. du hmm? man méttiwu ma. lu tax méttiwu ma parce du événement si man man CD CD yi laa am moom mercredi bu nekk président fa jëlee. Hmm. moo man méttiwu ma. te lan la yow xanaa ni mu yore woon Dakar dem dikk daf la neexul en tant que liggéeykat wala. non du loolu sax. du hmm. loolu c'est-à-dire man fu mu def six ans directeur général bu def six ans tamit yaa ngi yàgg nga fa quoi. te aussi donc euh, euh, mun na am

bilan euh, même bu fekkente ni coow li bari woon na mais peut-être c'est pour des questions politiques moo tax ñu jëlee ko fa. waaw donc loolu c'est des questions politiques te en plus. waaw xëy na peut-être yow loolu noo ko gisee. donc man gis-gis bu ma ci am mooy. Mhm. ah man si j'étais à sa place. du ma du ma prononcé wu ci affaire troisième mandat. Mhm. mais comme que prononcé wu na ci ba li ko ci fekk fekk ko ci donc xëy na tamit moom moo ko bëggee noonu moo tax loolu fekk ko si. Mhm. waaw mais wax dëgg fa yàlla donc euh, lu ñu naan ku njëkk a yeewu borom ndékki moom foo jaar nga tëddaat. Mhm. te am na loo xamante ni wax boo xamante ni wax buy këpp gaal moom. kenn du ko yéen nan ko ngeen doon dundee ak euh, DG maître Moussa Diop. waaw non wax dëgg fa yàlla. ci côté. Euh, liggéey. ak fulla ak fayda. ñun lañ doon dundee moom. donc mus ñu fa dem di ko ñaan wala di ànd moom ci ay politique wala di taxawaal wala def yenn affaires yi. Mm. donc ànd amoon nañ collaboration boo xamante la sincèrement parler donc séexoon nañ jàmm mais mus ñu nekk syndicat wu direction ànduñoo ak moom di ko di ko kii. boo ko leen syndicat yi nga xam dañuy créé wu donc mm. na am na am na ay ñun mm. wax dëgg fa yàlla. ñun Moussa Moussa Diop ba ñuy créé suñu ko donc bañ demee tamit am na problème yu bëri yoo xamante ni suñ ko daan réglé dañ daan dem ci bureau fëgg si table bi wax ak moom réglé kook moom. kon am na syndicat yu nekk Dakar Dem Dikk yoo xamante ni euh, maanaam maître Moussa Diop lañ àndaloon. direction générale bi. waaw bon du fa ñàkk ah <laughs> du fa ñàkk parce que cinq syndicats ñoo fa nekk. ñun ñoo mhm. mujjee jug mais du fa ñàkk mais Mbaye foog nga wax ñu ñan la. donc ñun ñoo ñun ñoo yow bokkoo ci. non man bokkuma si ñun ñoo ñun ñoo mujjee juddu. Mhm. parce que ñun ba ñuy juddu ba ñuy créer. Mhm. donc dañu dañoo nekkoon ci benn syndicat. gis doxalinu syndicat boobu noonu jaarul yoon. ñu taxaw di ko di ko di ko fustiger. ñu dem ba ci biir ñu daaxuñu ba ñu daaxee trois personnes lañ ñu créer syndicat bi tey yàlla dimbali nañ ci moment bi ñu toll ni un an et demi ñu ngi toll ci quatre cent et quelques membres. Mm-hmm. donc euh, ma jàpp ni fulla ak fayda ak. liggéey mais mais yan syndicat ñoo nekkoon a connivence euh, connivence avec maître Moussa Diop. non wala direction générale am na syndicat boo xamante ni vraiment euh, intérêt wu travailleur taxu taxu leen a woon jóg. non gisuma loolu nag sincèrement man dama jàpp ni. Mm-hmm. syndicat nga nekk ak direction ak nga ñàkk ak direction yëpp. Mm-hmm. donc am na foo xam ne travailleurs yi bu jaaxlee bu ñu ñëwee si yow war nga ko mën a war nga leen mën a défendre. Mm-hmm. parce que du ma toog fii nag di sànni xeer sama mbokk syndicalistes yi. Mm. di syndicat yi fa nekk yëpp kenn ku si nekk mhm. toll ngay guddi yoo xamante ni waa ji defal na la ay teraanga yoo xamante ni donc mooy loolu parce que syndicat yi fa nekk yëpp mhm. donc ku si nekk secrétaire général bu si nekk waa ji mhm. def na la cadre am fu mu la jële am fu mu la yóbbu man musuma dem ci waa ji ñaan ko musuma taxaw ci moom ne ko def ma lii wala def ma lële wax dëgg fa yàlla. mais nee nañ waaw nee nañ maître euh, Moussa Diop lu mu def ci Dakar dem dikk ci wàllum innovation et tout benn DG musu ko def foofu yow loo siy wax. waaw moom sax dakay dakay dammoo parce que bi muy euh, dem ci passation de service bi gis nañ ni lu mel noonu la wax que moom. il a vraiment innové am na lu mu apporté xam nga ne avec maître Moussa Diop si la ñu gis euh, ay Sénégal dem dikk bus yu rafet yi taaru yi gën a yokk ainsi de suite yow lan ngay wax ci loolu que maître Moussa Diop moom li mu réalisé euh, ci Dakar dem dikk beneen DG réalisé wu ko foofu ci Dakar dem dikk même bu fekkente ni sax tout n'est pas toujours rose. rose waaw donc am na ay réalisations yu bëri yoo xamante ni def na ko fa. nit ki mm-hmm. tamit da ngay wax rek sa digganteeg yàlla am na loo xamante ni wax dëgg fa ñun ñi nga xamante ni ñooy liggéeykat yi dund quotidiennement su mm-hmm. suñu xool seddu si donc lu mel ni comme suñuy plan de carrière ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni mooy mhm. loolu te aussi moyens yi nga xamante ne état bi jox na ko ko su ko joxee directeur bi nii man gëm naa ni moom it dina def résultat ko yu raw mais yow d'accord woon ne maître Moussa Diop li mu def keneen defu ko non d'accord naa ni def na fa dara wax dëgg fa yàlla def innové wul innové na indi ay Sénégal dem dikk Sénégal dem dikk indi mm. def na innovation yu bëree bëri bëri mm. yoo ko biir Dakar mm. ko mm-hmm. bu jàppalewulee Dakar dem dikk directeur ajudar. te mhm. moom wax dëgg fa yàlla durant magistère am état bi jox na ko ay moyens jàppale na ko. am na ñoo xam dañ leen di jox moyen mais du ñu def résultat. bon donc moom day wax dëgg fa yàlla jox nañ ko ay moyens te am na résultat yoo xamante ni donc. gis nañ tey boo ko doon noté maître Moussa Diop après ñu euh, dem ci seen DG bu bees bi <laughs> défi yi nga xamante ni moo koy xaar boo doon notee tey maître Moussa Diop ci at yi mu def ci Dakar dem dikk. waaw dama koy may huit sur dix rek <laughs> voilà. huit sur dix ah, kon maître Moussa Diop jàmbaar la. <laughs> dina am léegi tey ji euh. euh, lan mooy xaar euh, naka gisee ñëw Oumar Boun Khattab Sylla ci bopp Dakar Dem Dikk waaw donc gis bu gis-gis bu am ci Oumar Boun Khattab ci lu lum ma jot a parce que mhm. tamit man damay xaw a tey ci ay mbiru directeur bu ñëw mm, donc directeur bu ñëw bees mm. donc danga koy bàyyi mu xool mu gis moo tax bañ daaxee Moussa Diop mm-hmm. bokk naa ci syndicat yi nga xamante ni donc defuma conférence de presse defuma waxuma dara dama mm-hmm. jàpp ni peut-être kii ñëw xëy na mën na tane wala mën na yées. Mm-hmm. moo tax tamit ma xawoon am benn tekk tekkaaral. Mm-hmm. mais bu ma gisee waa ji wax def tournée am nañ yaakaar boo xamante ni travail yëpp amaat nañ ko ci moom. Mm-hmm. muy lan la wax lu dal seen xel. donc donc moom nee na. condition da travail yi nga xamante ni liggéeykat yi nekkee nañ ko biir Dakar Dem Dikk. dina fexe nu mu ko améliorer. aussi lépp loo xamante ne injustice la biir Dakar Dem Dikk dina fexe nu mu ko defaree. te aussi tey bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla boo demee si terminus yi da ngay boo demee ci gaar yi da ngay boo demee ci dépôt yi da ngay condition de travail c'est catastrophique mm-hmm. liggéeykat yi sonn nañ ñi nga xamante ni ñooy xëy di jàmbaar yi ñi nga mm. xamante ni ñooy rey seen bopp di rey di xëy di kii pour société bi avancer. Mm. ñooñu kenn joxu cër mooy comme comme ñan exactement les receveurs. Mm. les conducteurs les techniciens. maanaam ñiy dawal. waaw ñuy dawal waaw ñiy contrôler ñuy contrôler. yan techniciens yi ñuy defar kaar yi mécaniciens yi techniciens yi ak agent sécurité yi. Mm-hmm. ñu nekk infra ak bagage. yi sax kenn joxu leen cër waaw ñu nekk ci terrain bi daal. donc seen cër des bu baax ba baax. lan lan mooy seen cër. seen salaire dafa baaxul feebaree duñ faju dañoo amul centre sécurité au travail lan mooy seen jafe-jafe Dakar dem dikk jafe-jafe bu njëkk mhm. mooy seen plan de carrière

mun na jël fekk gardien fa la ñëw def ko chef wala def ko cadre donc loolu lañ bëgg ñu réparer ko parce que injustice mënut a maanaam ñu am plan de carrière. comme voilà. par exemple nga nekk receveur ba noppi nga avancé nekk lan. nekk contrôleur wala régulateur wala nekkaat leneen wala lu ñuy jël ci kër gi bu fekkee am na poste vacant bu am ci kër gi ñu def promotion interne jox ko ñi nga xamante ni. donc seen jàng ma ma kii nañ ko ñu jox leen ko ñoom. léegi Dakar Dem di seen salaire yi dafa baaxul wala baax na. donc xam nga tane na xam nga salaire moom si Ndakaaru. Mm. ñëpp xam nañ ni donc dañuy suturloowu rek mais tane na daal. tane na waaw mais maanaam. bu ñu sañoon ñu gën foog nga wax jafe-jafe li leen di fay baax na baaxul voilà wax nga plan de carrière bi évolution du am da ngay nekk si benn statut rek. Mm. des une dizaine d' et tout. Mm-hmm. mais su weesoo plan de carrière bi euh, li ñu leen di fay baax na wala baaxul. waaw xam nga xam nga duma toog si rajo di wax surtout ñuy dawal nga ko parce que <laughs> liggéey bi tamit yombul. voilà xam nga du ma mm. du toog si rajo di wax naan lii lañ ñuy fay wala lii lañ ñuy fay. Mm. mais daal xam naa ne ñu ngi siy suturlawu. mais baax na wala baaxul tane na rek parce que di nga gis ko taxaw ne on non non non on nous nous ne sommes pas bien payés voilà donc tane na ñu ngi ciy mm-hmm. suturlawu mm-hmm. tane na mais li gën a ji metti mooy mm-hmm. ñi nga xamante ne ñooy muyee la mayo ñooy sonn di rey seen bopp guddeeg bëccëg ñooñu ils sont très mal payés ñi nga xamante nag ñooy xëy ba ngoon jot amuñu benn njëriñ ci société bi amuñu benn njëriñ ci Dakar dem bi ñu xam sax lu ñuy def ñoo ñoom ñoom la ñuy fay ngan di salaire yi loolu moo ñu metti ñun ak lan waaw loolu moo ñu metti ak aussi suñu protection sociale tey man ni may wax ak yow ni sama doom maa ngi ko bàyyi hôpital amu mm. ordonnance amu amu amu suñu pharmacie yëpp tëj nañ leen mm-hmm. amuñu buñ feebaree duñu faju xam nga donc loolu dafa metti maanaam dañu amul prise en charge médicale wala lan exactement comme ça nga expliquer ñu comprendre merci beaucoup dañoo am suñu IPM boo xamante ni mhm. dañuy dagg chaque mois kenn ku nekk trois mille cinq cent mhm. donc ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk mhm. seen assurance maladie ñoom affaire bi concerné cadre yi ñoom am nañ assurance maladie am nañ assurance mooy directeur bu ñu feebaree ñoom dañuy la ñuy dem faju ji mais ñun ñi nga xamante ni ñooy rey suñu ay receveur nekk ay contrôleur nekk ay régulateur nekk ay chef de garde ñun suñu bopp ñun bu ñu feebaree dañuy am tous les problèmes monde parce que mm. dafa am benn collège IPM boo xamante ni ñoom ñoo ko faloon ñun ñoo ko faloon depuis 2010. Mm. seen mandat jeex na bu yàgg ñoom ñoo jël affaire bi détourné li nga xamante ni moom la liggéeykat yi waroon fajoo ñu jël ko yóbbu ko defar seen centre médicaux

yi dañu dagg ay vingt mille ay trente mille suñuy salaire te ñun comprendre uñ ba tey te li gën a garaaw mooy tey jii nii imagine chauffeur buy dawal nga jox ko kaar buy def cent personnes doomam feebar wala jabaram feebar. Mm-hmm. yaa ngi dégg amul ordonnance bu mu ko mën a fajee mais kooku yaa ngi yaa ngi koy indil problème. mais dama ne. Mm-hmm. Euh, ci cotisation boobu ngeen doon def. waaw maanaam bu fekkee cotiser nga trois mille cinq cent yi. Mm-hmm. conditions yi boo feebaree yow Mbaye Diaw euh, dañ lay jël en charge wala dafa am lu ñu lay jël en charge ci hospitalisation yi ci analyse bi ci garab yi ainsi de suite loolu laa bëgg nga expliquer dañ ma war a dañ ma war a jël en charge entière muy ordonnance yi muy hôpital muy analyse du ma fay dara ci kii bi mais dañ hmm. koy dagg sama bulletin de salaire sa bulletin de salaire la moitié la ñuy dagg maanaam hmm. pour cent yi IPM bi moo koy fay beneen cinquante pour cent yi dañ la koy dagg sa salaire. d' accord te IPM bi yéen ko cotiser. ñun ñoo ko cotiser. d' accord kon ji bu dee fekkente ni da hospitalisé mu nekk par exemple deux cent mille francs cent mille yi si sa salaire lañ koy. dagg dañ koy étaler dagg ko sa salaire. léegi beneen cent mille yi ci moom la IPM bi di jël en charge d' accord léegi. Mhm. Mhm. waaw allez-y léegi ban problème la IPM boobu am. moo ñu jaaxal ñun. Mhm. parce que ñun ñu ngi ñuy dagg suñuy bulletin yi ñuy dagg suñuy salaire. hôpital bu ñu dem dañuy daax comme xaj. te loolu tamit c'est au temps de de Moussa li mu fa nekk yëpp. Moussa Diop nee na amalu leen dërëm fay na leen xaalis. Mhm. dem na ci diggante bi am ñoom taxaw nee nañ carrément waa ji daf leen ameel xaalis. waajan non musaa Diop. Mhm. yaa ngi dégg maanaam direction bi quoi xam nga mhm. gouvernement gii moom continuité la. mais fu mu toll nii ñun luñ xool mooy. su fekkee ni fu problème bi mënti nekk. Mm. nañ ko régler nu mu gën a gaawee. parce que mm. ku ci dee wala ku ci am problème ñoom ñooy kenn du du ñu jël dara en charge. guddi ñu may wax demee pharmacie dañuy dàq. ci trois mille deux cent agents mille deux cent agents lañ. Mhm. benn pharmacie moom moo ñu daan jox garab. Mhm. Mhm. te pharmacie boobu noonu pour nga am garab il faut nga xëy trois heures du matin wala quatre heures du matin dem rànk. dem rànk su su su valeur cent cinquante mille lay jël par jour. mais dafa metti travailleurs yi sonn nañ damm nañ taay nañ ci IPM bi nii mu ñu ngi ñu ngi bëgg a yóbbu nit ñi yow mal xiyam. ko waxee DG bi euh, si temps Moussa Diop lu mu wax mhm. mhm. bi ñëw na. Mhm. xëy na peut-être problème mu signature day am. ak problème mu na keneen ñu ngi nekk ci problème yooyu. Euh, mais fu mu toll nii wax dëgg fa yàlla ñun mun xaar parce que ku feebar mënul xaar. mais problème ah. IPM bi c'est depuis quand. donc problème IPM bi c'est depuis très longtemps. mais ba boobu ba léegi ba léegi a ko régler. ba léegi kenn mënu ko régler. te te ñoom ñi leen ñu travailleurs yi ñun ñoo dañoo amoon benn waay bu ñu doon wax Omar Diop. Mhm. moom moo gënoon ci liggéeykat yi. Mhm. moom ba mu fi jógee wax dëgg fa yàlla ki nga xamante ni moom moo ñëw. yaa ngi dégg remplacer ko dañoo amoon yaakaar ci ñoom parce que ñoom dañoo dañuy faj suñu yaay faj suñu papa. Mhm. faj ñu ci gën constaté mooy. ñoom ñoo gën a li fi nekkoon. et pourtant seen mandat jeex na bu yàgg nanguñ dem élection te dañoo war a dem élection ñu changer bureau bi mm-hmm. changer ñi nga xamante ne ñoo ko gérer ñu auditer leen topp leen ci yoon parce que ñoom li ñuy def maanaam dañuy ñu ngi racket ñu ngi bëgg a rey liggéeykat yi parce que yaay dagg salaire jàmbur kon da bokk si ñu naan euh, maître Moussa Diop mi ngi dem mais foog ñu audit ko xool ba xam nu mu yoree woon boîte bi ainsi de suite jaar na yoon parce que man mënuma comprendre yéen ñu leen di dagg xaalis boobu si seen salaire ainsi de suite te boobu ba léegi su ngeen feebaree yéen jël seen bopp en charge complètement Maître musaa Diop li mu fa nekk yëpp mënul régler ce problème la xam nga xam nga yéen tamit ngeen ne teg xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga auditeur directeur général bu munti doon dafa am ay ay ay ay ay ay ay ay yu fa nekk ay OFNAC ay ay kii yoo xamante ni ñoom ñoo gérer loolu mhm. ay cour des comptes ak yooyu noonu yaa ngi dégg ñoom Moussa Diop buy dem dina def passation de service li mu fi mhm. def ak li mu fi bàyyi dina fi mais ñun waxuñu IPM dafa autonome IPM mhm. nekk foofu yëpp le seul problème mënu ko régler non mënu ko régler parce dafa ñëw fekk fa bor bu yaatu ba mu ñëwee moom fay na bor bi ba jeexal ko ba taxaw nañu carrément ameelu ma ñiy dërëm yaa ngi dégg mais problème bi mooy euh, bu cotisation yi tegaloo bu yàggee rek mm-hmm. après day bor bi day ñëwaat mm-hmm. léegi fu mu toll nii nag ñoom seen bopp mm-hmm. dañoo créer seen centre médicaux pour jéem a arnaquer liggéeykat yi. ñan ñoo créé seen centre bi. muy euh, ñoom waa IPM bi nga xamante ni benn syndicat majoritaire bu nekk foofu ñoom ñoo ko diriger. Hmm. yaa ngi dégg mooy ñoom Goudiaby ñoom kii ñoom euh, du ma tudd turam fii. ah léegi da a loolu musuma ko manqué respect te ko du ma ci plateau di ko manqué respect di wax si moom. Hmm. parce que fii la nekkoon suñu mais mais mais coolo dégg naa ko Goudiaby dafa créé centre bi ainsi de suite. waaw non créé wu ko conseil bi ñoom ñoo ko créé waaw yaa ngi dégg ñoom ñoo ko créé mm-hmm. donc bi ñu ko créé doon ngeen si tudd. bu jaabi ñoom ba ñu ko hmm. créé Moussa Diop lañ ko tuddee. Hmm. ñoom ñoo créé seen centre tuddee ko maître Moussa Diop. mais ñun loolu yëpp amul ñu importance xam la moom ñu amal importance soxna si. Hmm. mooy liggéeykat bi. warul feebar. te du mën a faju léegi centre bi pour lan la centre bi dañoo ut seen médecin wu bopp ut seen kii bopp léegi soom comme ça boo feebaree dañ lay orienté ci centre dañ orienté ci centre bi su ko defee ñoom bénéfice yi ñuy am ñu séddoo ko seen biir c'est que loolu mooy xeetu sàcc loolu mooy xeetu détournement d'objectif dañu créé centre bi pour waa Dakar dem dikk kese pour ñëpp du pour waa Dakar dem dikk kese dañuy def consultation interne ak externe mhm. yaa ngi dégg mu ngi mel ni comme tey jii nii euh, yow nga nekk sama soxna ma lay jox dépense mhm. chaque jour pour ngay toggal samay doom ñuy añ mhm. mais ci dépense bi ma lay jox yow nga wëlbatiku waat de créer ci sa propre restaurant mhm. di jaay ci mbedd bi di jaay ci biir di di mhm. yàqal say doom di yàqal ñi ci biti yaa ngi te man maay man maa lay financé dépense bi travailleurs ñoom ñoo financé centre médico bi léegi centre bi dem di defaat yeneen. service di defaat yeneen service di ci gagné xaalis di ci gagné xaalis di gagné ci biir di gagné ci biti. léegi liggéeykat yi lan lañ si gagné. dara gagné ci dara gën a sonn gën a ta gën a dee donc loolu moo ñu metti ñun. Mhm. ba tax loolu dañ koy porter yóbbu leen ci yoon lu yoon wax ñu xam ne lii la yoon dogal. est-ce que yow euh, d'accord nga ci ñi naan nañu euh, waxuma IPM à part ñi nañu auditer metre euh, maître Moussa Diop. bon waaw mais xam nga tamit auditer moom. parce que am ñu doon wax nañ ko auditer gaaw bala moo ñibbi France. bala mu dellu France moom dem na ñëwaat na. Mm. yaa ngi dégg te yaakaar naa ni man jàpp naa ni daal. Mm-hmm. cour cour ñi nga xamante ne ñoo capable pour ko. Mm-hmm. ñoom dinañ def seen liggéey waaw. mais yow d' accord nga si wala d' accord. bien sûr d' accord naa si mais yow xanaa da nga ragal maître Moussa Diop du du question la ragal. c' hmm. nekkoon na fi jóge na fi. waaw bëgguma di dugg ci ay yenn détails yoo xamante ni donc. Ah, moo ah moo doon DG bi pour man parce que problème de gestion yi ngay wax yëpp. <laughs> waaw c' est sous son magistère. d' accord am na lu mu fa fekk tamit foo def. cinq wala six ans ça c'est trop. merci ouais. beaucoup mais mais mais mais ñeme woo tudd maître Moussa Diop. Hmm. Hmm. mais dama di dafa di loo xamante ni. donc moom mu ngi fii Sénégal toog fi ne ne cour directeur mais yow d'accord mais dina dinañ ko audité ah, xam kenn audité audité wu leen ah man boo que directeur bu mës a jaar Dakar dem dikk boo fa mhm. jeexale dinañ la audité am nañ fi ay directeur général yoo xamante ni tëj nañ leen fi kaso Dakar dem dikk lañ nekkoon tëj leen kaso feu mhm. Christian Salvi dafa jóge directeur général gars tëj ko kaso gars yi ko mhm. ak ñeneen ak ñeneen yaa dégg mais xam nga mbiru audit moom. Mhm. man awma compétence boobu pour wax ci wala pour kii si. Mhm. parce que bokkuma fu ñuy. mais ñu déglu ko xool ko. Ah, càmbar ko bien sûr bu fekkee ni bu fekkee ni moom kii na kay. set na mhm. ni wecc. wala dafa am lu ñu koy lu muy tax wala lu ñu koy lu lu ñu koy taxal mais su boobaa yoon dina def liggéey. tey jii euh, yéen lan ngeen di xaar si Umar bun Xattaab si la. lu ñuy xaar si moom bëri na trop. bëri na trop trop trop trop trop ba foo ko natt weesu na ko. lu ñuy xaar si moom lu njëkk mooy. mu ñoŋol nekk nu liggéeykat yi. maanaam seen condition de travail. bu ko defee ba pare mu xool tamit seen plan de carrière mm-hmm. mu xool tamit ñi nga xamante ni ay liggéeykat lañ mérité nañ avancé mérité nañ am promotion mu defal leen promotion mu moytu tamit kenn bañ ko dugal ci ay affaire politique wala affaire xam hmm. mouvement ak yooyu noonu yooyu ay xeetu dóor la yoo xamante ni dafa dafa dafa nekk. Dakar yow politique woo yow man bokkuma benn parce que si kanam naa dinaa leen laaj parce que syndicalisme ak politique bi. non non non bokk na si liy jaxase seen seen seen seen. Dakar Dem Dikk boobu euh, bokkuma bokkuma benn parti politique. Hmm. guddi ñu toll nii. bokkagoo benn parti politique bokkaguma benn parti politique. te hmm. ba si si ni may nekkee secrétaire général ba ma fiy kenn du xam fan laa far. bokkoo ci Sonko bokkoo ci Macky Sall bokkoo ci Idi Khalifa Karim parce que njaboot gi mm. dafa yaatu te boo njabootee da war a yemale ñëpp mm. yaa ngi dégg man mm. kenn du gis may dem damay campagnal kenn wala damay politiqueal kenn Moussa Diop nekk na fi ba jóge fi musuma xam fu Podor féete musuma ànd ak moom politique musuma ànd ak moom campagne mais pourtant am na ay secrétaire yoo xam ne dañ daan ànd ak moom di campagne di politique d'accord léegi ak lan a bi parce que réseau Dakar Dem Dikk clients yi sonn nañ équipage yi sonn nañ deux heures temps ngay toog doo am car une heure de temps doo am mm. car renouvellement bi kii na mais aussi mu réorganiser waat Dakar Dem Dikk parce que mm. Dakar Dem Dikk guddi ñu toll ni moom comme sabar gu tas mm, donc y a trop de chefs yoo xamante ni donc xamuñu sax réellement seen mission ak seen rôle mm-hmm. loolu moom moo ñuy metti ba nga xamante ni ñi ci suuf toujours dañ leen fàtte dañ leen te aussi bu bëggee réussir tamit na def très attention. Mhm. moytu yenn simmikatu veste yi nga xamante ni. Mhm. Mhm. directeur bu ñëw ñu soloo ko veste bu bees. il faut tamit mu jéem a éviter loolu. am fulla ak fayda am rigueur. ci liggéey bi. su ko defee dina réussir. mais bu ñëwee àndul ak fulla àndul ak fayda ah amul benn rigueur day échouer. wax dëgg fa yàlla te aussi euh, na bañ a def départ gaynde arrivé muus. parce que tamit souvent day loolu day am mën nga ñëw am ambition liggéey am kii liggéey mais su fekkee ne ñi la entouré wala ñu la kii euh, kii nañ la mun na nga am safaan Dakar Dem Dikk amuñu problème mu directeur. Mm. mais problème système lañ am. système bi moo doxul. Mm-hmm. mais pas ay directeur parce que ñoo ngi suñu cinquième directeur am nañ fi directeur boo xam ne dafa jógee dem nekk ministre. Mm-hmm. am nañ fi directeur boo xam ne tey mu ngi ci yeneen société di mais lan moo tax Dakar Dem Dikk clients yi dañuy taxaw lu yàgg euh, ci arrêt bi du ñu am duñu am bus lan moo tax seen trafic yéex bu ñu ko comparer ak peut-être aftu ñoom ñooy gën a gaaw booy xaar bisu Dakar Dem Dikk mun nga def sax trente minutes wala une heure de temps di xaar benn bus. waaw lan loolu lan moo ko waral. c'est loolu réseau bi bi la. Mhm. en plus euh, ñëpp xam nañ ni dakaa Dem Dikk. Mhm. donc euh, du du du du wàcc du jàdd aftu bu na nga ciy dugg bu xatee mu dévier teegi dem. Mhm. Dakar Dem Dikk du dévier du du jàdd moom itinéraire am lay jël mais en plus tamit li gën a yokk loolu mooy kaar yi nga xamante ne gouvernement bi da koy faral di indi. par yombute. ni ñu leen ko indien yi di joxe ak ni leen ko chinois yi di joxe day yomb ba. ñoom dañuy ñëw jël ko sël ko yi. les cadres yooyu suñ dawee un an deux ans trois quatre ans bu ñu amulee pièce de rechange yu leen accompagner suñ demee ba benn moment dañuy commencer di rës mm. di yàqu di panne loolu moo ñu dal guddi yuñ toll nii ba nga xamante ni car yu ñu amoon yëpp. Mhm. dañoo dañoo dañoo paan presque la mhm. bu dee bu dee bu dee quatre cent car trois cent yëpp guddi ñu toll nii dañoo paan te pièces yu leen di yëkkati donc pour nga am ko problème la. problème la loolu moo tax seen seen rotation. day day yéex day fréquence fréquence ni sax am na une certaine. waaw waaw euh, un certain professionnalisme boo xam ne. am euh, clients yi wax nañ ko si si vraiment. waaw euh, liggéeyu Dakar Dem Dikk. Mhm. mais lan moo waral tamit seen syndicat yu bari Euh, Omar seen seen euh, Mbaye plutôt seen syndicat yi bari na te souvent sax dañuy wax booloo mooy doole. mais da ngay gis benn entreprise rek Dakar dem dikk ngeen bëgg am fii. Euh, cinq wala six wala sept ku mer rek génn. créer sa syndicat <laughs> comme yéen. comme que yéen a ñun te ba ñu dàqee nar ñu woon créer syndicat sax mais liggéeykat yi ñoo am yaakaar si ñun. Mhm. donc am kóolute ci ñun. donc mhm. jàpp mais mais bu dee benn entreprise ngeen nekk. ngeen booloo fa laay ñëw nekk benn jiital kenn fala falaa ñëw kaas est-ce que bañuñu loolu te mm. loolu ñu si dynamique boobu lañu nekkoon mm-hmm. mais dafa fekk ni euh, ginaar bu ko xeebal jàngoroom mm-hmm. te aussi Euh, dafa am loo xamante ni tey jii nii ñun dañoo ñëw indi syndicalisme bu bees. Hmm. nouvelle forme de syndicalisme. boo xamante ni lu bees lan ngeen indi. non non dialogue ku teg syndicat naan man sama syndicat xaaral ma expliquer la dialogue. Hmm. waxtaan jubóo man mi ngi di wax ak yow. Hmm. j'ai seize pays dans le monde. j'ai aux États-Unis en France euh, en Belgique. donc dëkk Afrique yu bëri dem naa fa je représente. sur le plan africain donc euh, am naa ay ndomb tànk yoo xam te ne am naa ko fi même sur le plan national mhm. je suis dans le haut conseil du dialogue social mhm. kon donc syndicat moom mhm. kenn du ko jàngal xam naa ko bu baax a baax a baax mais dafa fekk ni société boo xamante ne trois mille deux cent agents lañ yaa ngi dégg cinq syndicats nekk fa loolu dama jàpp ni loolu lu raisonnable la. lu xel nangu la te mm. boo demee Sénélec wala nga dem SONE wala nga dem SDE. Mm-hmm. di fa fekk ay syndicats yoo xam ne dañoo ëpp mm-hmm. tax mm-hmm. ay syndic boo xamante sur quatre cent membres. trois cent cinquante yëpp ay ndaw lañ ay jeunes lañ yoo xamante ñoo bokk même génération. donc moo tax mais loo def bañ dàq la. donc euh, loolu donc fi ma nekkoon la. <laughs> Mhm. donc euh, sama secrétaire général la sax. loo fa wax ak loo def euh, li ma fa wax mooy mhm. man dama nekk nit koo xamante ni. Mhm. donc dama am sama sama liberté d'expression. donc am na loo xamante ni su ma gisee ni yaa ngi koy def doxul dinaa la woo ci ndurux wax la boo déggulee nag ma taxaw jàkkaarloog yow wax la. yaa ngi dégg parce que moom li ñu jote woon mooy problème mu élection de délégué. di personnel. mu am benn waay boo xamante ni da ko bëggoon a teg sama kaw ma ne ko man kii du ma jiite. Mhm. parce que man def naa lii ci syndicat jaar naa fi jaar naa lii def naa lii ak lii su ma sañoon man kii bu ma naree jiite ma bàyyi. Mhm. mais su leen laa xamal. Mhm. dem nañ élection délégué passé ñu am zéro délégué. ñu nar a demaat élection délégué suñu amaatee zéro délégué da teg sa ndomba tànk. donc mu défier ko mu défier ma. ñu delluwaat élection mu amaat zéro délégué. ma ne ko nag entraîneur équipe d' afrique a démissionner wala ñu man par principe dootoo ma jiite. Mhm. donc après ñu complot dàq ma. Mhm. donc ñu ma da dàq ma dàq boo xamante ni jaarul yoon. Mhm. ma toog jàpp sama ñaambur. donc liggéeykat yi nga xamante ni mbay délégué lañ ma daan woowe parce que ku mës a am sa problème boo ñëwee si man. yàlla dina ma dimbali ma réglé la ko. donc ñoom ñu ànd ak man. dooleel ma. ñu créé suñu syndicat yàlla di ñu jàppale tey jii nii. Mhm. wax dëgg fa yàlla am na ay réalisation yu bëri yoo xamante ni def nañ ko ci liggéeykat yi jàppale nañ leen. ba léegi ngeen am 400 membres et tout yéen a mujjee jut yéen a caat bi foofu Dakar dem dikk voilà <laughs> léegi ñu laaj la euh, si euh, nu mu tuddati euh, syndicalisme ak li nga xamante ni moom mooy politique sàng sax wax nga ko si biir. Mhm. da ngay gis ni sax kii yu bëree bari souvent problème interne yu bëri yuy am looloo koy andi bu fekkente ni da nga jiite syndicat. am connotation politique jiite syndicat far ci nguur gi wala jiite syndicat euh, far ci opposition bi bu fekkente ni vraiment euh, amoo benn ndëgërlaay bi vraiment da euh, souvent doo mën a def sa liggéey objectivement donc yow naka nga gisee li nga xamante ni mooy syndicalisme ak politique est-ce que ànd nga parce que jafe yooy yooyu du seen secteur rek boo demee si mm. njàng meek njàngale bi fekk ko fa boo demee ci santé bi fekk ko fa foo mënti dem même biir université sax da nga ko fay fekk parce que souvent da ngay gis ni kii jiit jiital nañ ko ko mais ci gannaaw fare na ci opposition wala fare na ci pouvoir souvent décision yi muy jël wala combat yi muy kii dafay daal di euh, ça pose problème yow jàpp nga ni ànd na wala àndul ah, syndicalisme ak politique man dama man sama philosophie mooy loolu mm-hmm. àndul te mm-hmm. d'accord uma si mm-hmm. parce que dafa am syndicalisme ak syndicalisme syndicalisme mooy syndicalisme bi nga xamante ni xaalis kese moo ko intéressé koppar kese moo ko intéressé te en plus tey jii nii Euh, boo nekkee comme ça tey bu fekkee da nga far ci nguur gi. Mhm. nguur gi da koy bàyyi mu def lu ko neex. Mhm. bu dee da nga nekk opposition. doo mës gis loo xamante ni nguur gi def na ko ci lu baax. Mhm. ba tax na ci kaw loolu il faut tamit ñuy am benn patriotisme syndical nga nekk syndicaliste xool sa diggante ak sa borom ak sa tëraayu bàmmeel di def loo xamante ni tey jii nii da ngay quitte avec ta conscience. kenn du la manipuler. parce que boo faree fenn rek. dina la jéem a manipuler ci seen côté. Mhm. donc loolu moo tax ma ciy woo sama mbokk syndicaliste yi nañ bàyyi politique bi. Mhm. parce que politique. bari de foofu Dakar dem waaw waaw bëri fa ay syndicaliste politiciens ay yooyu mënul ñàkk. Mhm. mais aussi ñu jéem ko éviter. man bokkuma ci benn parti politique te dama bëgg parce que di njaboote ñëpp di njaboote ñu bokk ci Sonko ñu bokk ci Idi ñu bokk ci Macky ñu bokk ci feneen. léegi bu ñu la gisee yow da ngay rôle euh, syndicaliste bu jotee sa rôle tamit euh, euh, partisan bu jotee nga def xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga na ma yàlla baal te jéggal ma nga baal ma ci kàddu gi parce que mhm. politique ak syndicat dañoo am lu leen utale mhm. syndicalisme donc mun nga def lu nekk mais man fen moom wuñ ko ci. Mhm. mais bu dee politique moom donc dañ naan foofu fenn sax dagan na fa pour nga mën a am benn kii. am li nga bëgg ci kàddu gi quoi. Mhm, mhm. mais loolu moo waral syndicat moom boo xasee fenn liggéeykat yi moom dee nga. doo da ngay da ngay suul buñ ko xamee c'est fini c'est fini. mais bu dee politique nag moom loolu loolu moom permettre nañ la ko. politicien moom jàppal ni bu la waxee fukk. neuf yëpp lu ci ëpp. yow Mbaye Diaw boo jógee fii ah, politicien <laughs> politicien yi dinañ la attaqué. man góob ma politicien. Hmm. sincèrement góob ah politicien moo tax man soruma ci quoi. franchement parler. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey ji Ndeye Comba Moreau dalal euh, Mbaye Diaw nekk secrétaire général bu syndicat des transports routiers bu Dakar Dem Dikk nekk tamit chef de section euh, logistique foofule ca Dakar Dem Dikk euh, Covid bi ak dem dikk yéen naka ngeen ko dundee laal na leen laalu leen gis nañ ni euh, secteur yi nga xamante ni euh, euh, Covid 19 ñoom la gën a impacté dem beeg dikk bi ci la bokk est-ce que Dakar dem dikk naka ngeen dundee crise u Covid 19 bi ak seen liggéey. waaw dund nañ ko dunduñ bu méttee métti métti. Mhm. parce que ba ba Covid bi déparé ba feebar bi feeñee. Mhm. ñun ñoo gën a exposé parce que ñoo yóbbu nit ñi. Mhm. te accompagnement bi nga xamante ni waroon nañ ñu ko accompagner. Mhm. defuñu ko muy la direction générale. Mhm. mais teewul tamit liggéeykat yi fa nekk fas seen am seen jom am seen fulla ak seen fayda. Mhm. di jànkoonteel mbir mi di xëy di wàcc couvre-feu bi am nañ suñuy agent yoo xamante ni ci couvre-feu bi jàpp nañ leen. ñuy liggéey ñu wàcc di liggéey dañ nañ fa lu nekk. Euh, te li ñu gën a metti mooy. Euh, wax dëgg fa yàlla état bi ba mu jugee pour accompagner Dakar Dem Dikk ci Covid bi. Mm-hmm. donc ñun ñi nga xamante ne ñoo doon sonn di rey suñu bopp gis ñu suñu bopp. Mm-hmm. koppar yi ñu lim. waaw que génne nañ milliards yu bëri génne nañ milliards yu bëri secteur yi mu gën a laal danañ leen ci jox dem beeg dikk bi et tout sentir ngeen koppar yooyu Dakar Dem Dikk ñaata lañ leen jox. Mm-hmm. ko. mais li solo mooy dañ ko defoon pour jéem a assurer suñuy salaire. waaye ñun suñu bopp waxoon nañ pour que ñu ndàmp liggéeykat yi. maanaam jox leen prime mu corona. à notre grande surprise am na ñu fa am primu corona te ñoo ñu tey jii ni mm. yàlla dogal na seen loxo jot na seen ginnaaw. Mm. muy ay cadre ay kii yoo xamante ni donc jël nañ fa benn xaalis boo xamante ni nee nañ ni ñii dañ ko séddale pour jox leen prime corps prime prime pour corona sangam sangam mm. te loolu nag loolu dañuy jàpp ne injustice mënut a passé loolu mun ñu fekk ñi nga xamante ni durant corona bi yëpp ñoo doon assurer service minimum bi mm-hmm. kenn ndàmpu leen kenn joxu leen bàyyi leen fa ne leen fa ñu dem jox ñoo xamante ni donc ñu ngi tëddoon seen kër wala ñu ngi toogoon donc ci jox boo xamante ni jaarul naka ngeen ko dundee maanaam gap amoon na ci euh, peut-être. Euh, taxaw amatul woon. waaw euh, clients yi wàññeeku gis nañ ni même pas quinze heures seize heures ngeen wàcc. ainsi de suite ko dundee am na ñu ñu yóbbu woon chômage technique est-ce que ñooñu ñu ngi leen doon fay. waaw wala déet. donc ñoom ñëpp metti woon na nag quoi wax dëgg fa mm. yàlla parce que mm. société boo xam ne daan def. presque chiffre d'affaires vingt et quelques millions mm-hmm. tey mënu doo dem ba ak ay cinq millions trois millions mm. parce que interurbain bi woon mm-hmm. AIBD bi dawul woon Euh, ay treize personnes lañ la autorisé woon wala vingt personnes. Mm-hmm. donc loolu foo jaar dina am ay conséquences néfastes. Mm-hmm. ba tax na ci kaw loolu donc amoon na suñuy acquis yoo xamante dañ ko amoon lu ci mel ne ay pré baptême lu ci mel ne mm-hmm. ay denrées alimentaires yooyu yëpp. donc finalement dañ ko mujj arrêté. donc parce tamit am nañ ci impact économique boo xamante du ñu gaaw a bàyyi noonu. mais aussi état bi tamit wax dëgg fa yàlla ci fonds de résilience bi am loolu moo tax yàlla xaw ñu suturaal. yéen yóbbuñ kenn chômage technique yóbbuñ kenn chômage technique. wax dëgg fa yàlla. Mhm. te ñu leen doon fay seen salaire ñu ngi doon fay suñu salaire à temps. mais prime bi euh, prime yi dafa am ñu ñu ko jox. daa am léegi koppar yi nga xam ne état wu Sénégal kon jël na ko euh, jàppale ko par exemple Dakar dem dikk koppar yooyu si ñan la demaat. donc euh, loolu suñ. wala moo doon permettre ngeen moo permettre ñu fay suñu moo assuré suñu salaire rek suñu kii. Mhm. mais am na loo xamante ni ba ñuy yóbbu enseignants yi ak ba ñuy kii. Mhm. donc à notre grande surprise dégg nañ ni. Mhm. am nañ loo xamante ni am nañ ñu ko séddale ñu jël. ci code période tabaski bi. loolu nag dafa ub suñu bopp ñun ñëpp. te loolu tamit bëgg nañ ñu leeral ko nu mu gën a gaawee en plus directeur bu bees bi ñëw tamit mu bàyyi ci xel bu baax a baax ba tey parce que ba tey ñu ngi dund për mbiru corona. am nay am na xam nga na fa trop. Mhm. parce tey jii nii receveur bi mooy jëndal boppam gant mooy jëndal boppam gel yaa ngi dégg mooy jëndal boppam masque. keneen ku nekk ku fay liggéey guddi yu ñu yaa jëndal sa bopp loolu parce que benn yoon lañ ñu ko dote ñaari yoon après kenn dote waat. après mhm. mais naka nga gisee actuellement pratiquement même mesure yu ñu jëloon yëpp teggi nañ ko ba bi ci mujj sax taxaw bi ñu doon tere commencé waat nañ taxaw ainsi de suite euh, yow loolu nga lan nga ci wax feebar bi jeexagul permettre nañ léegi taxaw bi si ñu ngi koy sol ba fees alors ko wax nga ko yéen sax amoo leen équipement rawatina sax clients yi nga xamante ni ñu ngi dugg ci woto bi naka nga gisee loolu feebar baa ngi fii demagul jeexagul gis nga ñu ngi wax ay France yooyu ay deuxième vague mi ngi commencé di fa am euh, fii ñu nit yi commencé waat di taxaw ci bus yi. waaw mais fagaru rek et en plus tamit vivre avec le virus. wala yéen moo leen gënal ñàkk kii bi. comme ni ko président waxee rek. parce que mm-hmm. tamit ñun dañoo nekk ci dëkk yu gën a ndóol ci àdduna bi. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. peut France moyens yu ñu am. Occident moyens yu ñu am ñun amuñu moyens yooyu. ba tax na ci kaw loolu donc ñu jéem xool rek nan la dundee ak le virus. donc man de donc yow moo moo moo gën peut-être mesure restriction yi ñu tegoon économiquement. waaw malgré le risque daal. malgré le risque moo gën parce que tamit. Hmm. donc dafa metti dafa metti ci ñëpp. mais ban ban gap parce que aftu ñoom neen liñ si ñàkk kenn xam mais Dakar dem dikk moom gap bi bu ko kiiyee si nombre de mois presque six mois yoo xamante ni. non ñàkk na ci lu bëri moom hmm. ñàkk na ci lu bëri bëri ci wàllum koppar. Hmm. te it feeñ na ci Dakar dem dikk bu baax a baax. ci ci bi jàppul woon moom. waaw parce que tamit su fekkee ni tey jii nii. Mm. yow kaar boo xamante ni. Mm. bu xëyee parce que ñun suñu rôle mooy yóbbu population bi. Mm-hmm. yóbbu population bi tey contrat la boo xamante ni contrat social la. entre mm-hmm. état ak population Sénégal. parce que amuñu droit. Mm-hmm. Euh, population bëgg déplacer du ñu am moyen de déplacement. loolu moo tax tey Dakar Dem Dikk ak Sénégal Dem Dikk mhm. donc yoon la woon ñu yóbbu nit ñi mhm. tey Sénégal Dem Dikk boo ne tey jii nii région yëpp tëjoon nañ ko mhm. benn car dematul nga ne AIBD car voyageurs yi nga xam ne ñoo daan jógee aéroport di ñëw nga arrêté ko nga réseau bi nga xamante ni car bu nekk dina verser moyenne quatre vingt mille léegi mu ay trois mille cinq cent lay verser quatre mille cinq cent donc loolu day am ay ay ay impact yoo xam ne mm. da koy def mm. économiquement mm-hmm. mais aussi état bi tamit wax dëgg fa yàlla am na accompagnement bu dëgër boo xamante ni jàppale na ko Dakar dem dikk mm, ci côté boobu ci côté boobu waaw donc léegi yow naka nga gisee Mbaye le fait temps bi sax bareetul affaire surcharge mu dem ba bokk ci dundinu euh, sénégalais c'est vrai que bi corona bi amee gis nga oto yi début bi sax par benn fii benn fee aéré mujj gi ñu ne waa nombre de place yi rek taxaw amatul euh, ñenn ñi sax jàpp ni loolu moo normal même bu taxaw di am sax peut-être war nañ ko limiter mais lan moo tax euh, surcharge boobu maanaam culture surcharge léegi bokk ci sénégalais yi waaw no c'est-à-dire xam nga du question wala koppar bi rek moo si am importance comme ni nga ko waxee jàpp ni bu ñu koy defar mhm. euh, dañ ciy boole waale place assise ak place debout tey amul benn dëkk boo dem taxaw bi ma expliqué la mhm. dëkk booy mhm. dem ci àdduna bi tey doo gis euh, bus yi duñu am ñu taxaw métro yi sax dañuy fees mais aussi li ñu war a jàpp mooy ñun en tant que sénégalais en tant que population mooy ñu jéem a am tamit benn euh, benn benn benn benn benn benn benn comportement boo xamante ni bu kii lay doon parce que corona bi tamit wax dëgg fa yàlla am na lu bëri loo xamante ni. indi na ko comportement mhm. léegi il faut tamit ñu gën defaraat suñu comportement di laal ay gel alcoolique di am ay masque di def affaire yoo. xam mais yéen tamit ni ngeen di chargé bus yi est que du ngeen ko bàyyi tamit. non non non ñun ñun. mais debout buñ ne tamit bàyyi <laughs> par exemple sax Dakar dem dikk sax ñoom peut xaw na ngan mais buñ ne par exemple 15 debout mais ngeen yem si 15 debout. non non ñun moom permettre nañu ba ñu am ay waaw parce que bus bi moo yaatoo noonu mm. parce que dañ leen bus minimum mun na yóbbu cent personnes quatre vingt dix à cent personnes mm. yaa ngi dégg bu dee vingt cinq places assises la am donc mun nga mais suñ leen waxee cent debout est ce kon yéen yenn saa du ngeen def deux cent non non duñ def deux cent man ñun bu dee Dakar dem rek dañuy am tout temps renouvellement de charge mm-hmm. parce que arrêt bu ñu dem dina am ñu yéeg dina am ñu wàcc mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. donc parce que tamit foofu yaa di n'importe quoi. Mhm. léegi lu ko intéressé mooy am xaalis. ñi ñi ñi ñiy euh, saccagé bi si yow loo leen di wax. waaw non loolu en cas mhm. sax aftu mais Dakar dem dikk la ñuy viser. loolu ban message loolu loolu dañ dañ koy dañ koy naqarlu di ko ñaawlu rek. Mhm. mais aussi di wax ak tamit population bi ñoom it ñu am benn euh, conscience bu bees. parce que li ngay taal tey suba yaa ciy dugg. Mhm. li mhm. ngay yaax tey suba yaa ciy dugg tey boo demee dépôt Wakaam sa day jeex. kaar mhm. yu ñu fa toj kaar yu ñu fa taal ay bourses yu taal kaar. ay équipe nawetaan bu ñu gañe nga taal kaar mbër bu ñu daan nga taal kaar donc yooyu da koy def. foog ni Dakar dem dikk nga koy def mais sa bopp nga koy def ëllëg parce que yow miy taal kaar tey suba yaay taxaw ci arrêt di xaar ay une temps deux heures ko def ñu nga xamante ni njiitu réew Sénégal jël na ko wala annoncé na ko nee na dafiy jëlee car rapide yi nee na tamit sept places yu màgget yi gis nga dañ leen di remplacer ak yeneen oto euh, yu bees euh, lool lan nga ci mën a wax. waaw man personnellement. Mhm. Euh, damay saluer décision bi. Mhm. mais bu fekkee ni na na ci am fulla ak fayda. Mhm. parce que ñëpp xam nañ ni transport moom. Sénégal. da ci waroon jëm kanam mais da ci dellu ginnaaw bu baax a baax a baax tey boo demee ci sous-région même boo demee ay Mali wala ay yeneen dëkk sax nga xamante Sénégal moo leen raw téeméer junni mais boo demee seen parc automobile da gis ay oto yu bees ñoo fay daw mm-hmm. mais fii ngay gis ay oto yoo xamante ni depuis avant indépendance ba tey kon yow d'accord nga ñu jële fi bu baax a baax a baax mm-hmm. dañ ko fi war a jëlee parce que loolu Ablaye Wade waxoon na ko mm-hmm. mais amul mesure d'accompagnement Macky Sall indi na ko mais amul parce que aftu yi ba ñu leen indi fii dañ leen dañ leen remplacer ak ay car rapide mais tey jii nii car rapide yi tey gën a bëri parce que hmm. du leen arrangé ñu bañ a def loo xamante dañ koy def par politique wala pour pour de population bi rek mais na am fulla ak faayda hmm. su ko fi bëggee jëlee mën na ko fi jëlee euh, Dakar Dem Dikk ak euh, quatre yi mu amee Sénac ba ñu dagg seen carte rapido yi loolu loo ñu si mën a wax waaw Mm-hmm. Euh, xaw na doy waar quoi parce que tamit euh, ñoom. Mm-hmm. bañ ba ba problème bi amee man personnellement dem naa saisir le directeur général na ko mm-hmm. gars yi équipage yi sonn nañ clients yi sonn nañ. ñëpp xam nañ ni. yoonu croisement Cambérène bi day xat yoonu Pikine bi dafa am ay travaux. te boo bëggee jël kaar yëpp delloo leen ci kii day metti mu ne moom ci contrat bi nga xamante ne amoon na ko ak waa Eiffage. donc euh, fay bi nekkul fayu global. day dugal dugal la ba mat yaa ngi dégg. mais Eiffage dafa taxaw ne Dakar dem dikk jot na ko fay lépp nu mu gën a gaawee. Mhm. te tamit loolu dañ ciy interpeller le ministre du transport. ak mhm. le président de la république. Mhm. parce que tey jii nii Dakar dem dikk nekk société publique nationale nga xamante ni bi ñëpp a ko moom askan bi yëpp a ko bokk Eiffage nga xamante tubaab yi ñoom ñoo ko moom jëlee ko fële tey bii su Dakar ak bii aftu ak bii leneen ñoo bokk même trop trop trop hmm. trop ci képp ku fay jaar. Hmm. ba tax na tamit mais lu tax yéen yooyu du ngeen na suñu plateforme. di yëngu di yëngal di di def ay marché bind nañu bind hmm. ci par rapport ak prix yu xamante ni tamit métti na ci Dakar Dem que su xëyee. dina fa def ay rotation yu bëree bëri bëri hmm. Sénégal dem dikk même chose. AIDB mais lu tax mënoo organiser marche. non xam nga période période Covid bi nii mënoo ci organiser marche. dem organiser marche dem buntu palais dem dem dem FH. mënoo ci mënoo ci organiser marche. Mhm. na suñuy plan d' yoo xam ne bëgg nañ ko teg ci kanam. Hmm. ko defee ñoom ñu am benn euh, benn benn benn boo xamante ni dinañ ko dinañ ko kiiwal Dakar dem dikk muy fay sax cinquante pour cent wala kii pour cent bañ ñu fay mais nañ ñu ko wàññil parce que tey jii nii bu fekkee ne yow yow si départ bi di nga ci def quatre yoo xamante ni ci péage bi ngay jaar wala cinq yoo ci péage bi ngay jaar bis bu mm. nekk mm. donc loolu war nga ko mën a amal benn benn réduction boo xamante donc trente pour cent lay doon wala quarante pour cent parce que service public lay def mm-hmm. loolu moo am ci àdduna bi yëpp mm-hmm. mais Eiffage fii rek lañ gis ni Eiffage ni leen joxee contrat bi ñëpp xam nañu jaarul yoon mm-hmm. ni ñuy exploité euh, population ba tax na tamit loolu côté boobu noonu ko na si li ay loo ni jafe-jafe yoo xamante ni day metti ci ñun te aussi waa ji bees yi bu ñëw hmm. moom it na jéem a fexe nu mu éponger dette boobu waa ji du question la du question la kii chaque mais ah, man maa <laughs> ma ne waa ji ragal maître Moussa ma waa ji ñemewoo tudd turam waa ji nu mu tudd non non non mooy kii bon ah, DG bi mooy nu mu tudd mun xatab ne sais <laughs> ko bu baax baax moo tax ma ne waa ji quoi parce que bañ dama ko toujours dama koy jaawale bun ab Abdallah mais syndicaliste du du du ragal DG. non non ragalul man su ma su ma su ma demee ba nar ragal DG ma teg sama ndomba ah, tànk. man DG bu ñëw sama kanam damay damay taxaw jàkkaarloo moom DG bi fi jógee. donc j'ai pas froid aux yeux pour jàkkaarloo pour wax moom parce que j'ai la tête waaw deful ma dara jàpp ma bu fi nekk tamit même chose. waaw gul mu ngi. mais doo ko gësam ci lii. gësam bi ñu koy gësam ñu ngi ko koy gësam. Mm. defal nañ ko document bu dëgër boo xamante ne lépp luy metti Dakar lépp luy tolof tolof Dakar defal nañ ko kayit tënk ko jox ko ko. Mm. yaa ngi dégg mais aussi en communication euh, télé ak rajo dafa am forme de communication. Hmm. da nga koy wax pour mën a. kii sa waaw ah, ah, ah, Mbaye daa man damay invité syndicaliste yi mais ñoom dañoo ñeme seen i DG de. <laughs> léegi ma bàyyi la nga nga tàggatoo ak euh, auditeurs yi temps bi jeex na. waaw hmm. waaw vraiment maa ngi nuyu auditeurs yëpp di am kontante ci émission bi ci dalal bi nga ma dalal di nuyu tamit waa Dakar Dem Dikk yëpp. Hmm. di ñaanal yàlla missionnaire yi nga xamante ne ñooy dem Touba. ak pèlerins yu dem Touba yëpp yàlla yóbbu leen ci jàmm indi leen ci jàmm. suñu chauffeur yi yóbbu kaar yëpp kenn ku si nekk yàlla defal la jàmm musal la ci ayum euh, tali. Mm-hmm. nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm. donc di nuyu tamit sama membre syndicat muy waa SDTR 3D. maa ngi mm-hmm. nuyu membre yëpp. Mm-hmm. di leen euh, ndokkeel ci màggal gi di tamit euh, ñaanal ñëpp jàmm. di ak sa bras droit Abdoulaye Niang ah, Abdoulaye Niang moom sama koy nuyu maa koy nuyu de passage waa AIDB. waa Sénégal dem dikk. waa FES dem. waa techniciens yi mécaniciens yi waa bagage yi Sénégal dem ñëpp tout ku lim jum daal Dakar dem dikk yëpp daal maa ngi leen di bu baax a baax di leen gërëm di tamit euh, wax ni bu fekkee ni wax naa fi lu ñagas wala lu kii rek maa ngi siy bu baax a baax nga ragal sa DG rek <laughs> ay ca mi ngi noonu ñu ngi koy remercier bu baax a <laughs> baax ki lee di mbay Diaw nekk secretaire général euh, bu syndicat des transports routiers bu Dakar dem dikk nekk tamit euh, chef de section logistique ñu doon waxtaane lépp lu soxal rek liggéey ba foofu foofulee ca Dakar dem dikk ak lépp lu soxal dem beeg dikk bi file